Serigne Babacar Dramé Serigne Babacar Dramé mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1884 ci dëkk bu ñuy wax nag kumpal kumpal nag mi ngi ci suuf soosu nag di Saalum muy doomu soxna Bodé Mati Cissé ak Serigne Moussa Tafsir Dramé ci atum 1884 nag la feeñ jamono am na nag ñu bokkal nag soxna Bodé Mati Cissé mii ak Serigne Moussa Tafsir Dramé muy ku ñuy wax nag Serigne Mor Bodé ibnu soxna Bodé Mati Cissé ak Serigne Moussa Tafsir Dramé ak moom Serigne Babacar Dramé ibnu soxna Bodé Mati Cissé ak Serigne Moussa tafsir Dramé kenn rek la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen muy sëriñ Mor Bode Cissé waajuram wu jigéen wii nag mi ngi cosaanoo nag ci dëkk bu ñuy wax nag wanaar nekkitim nag ci Saalum moom soxna Bode Mati Cissé mii Ramatulaay Cissé nag la tudd waaye ci Saalum nag ñu bari nag rama yi Bode nag liñ leen di woowee muy doomu sëriñ Ibrahima Ñaaw Cissé ci Saalum googu nag ñenn ñi itam nag saa yuga nag lañ ko doon woowee waajuram góor wi nag de sëriñ Moussa Tafsir Dramé Saalum itim nag la cosaanoo ci wàllu wuy Saalum itim nag la bokkoon ci ginnaaw ron ki sëriñ tubaa seexul xadim itam nag la nekkoon liggéeyal na nag lu baree baree baree bari seexul xadim saalum googu itam nag lañ ko denc sëriñ Babacar Dramé mii ñu fas yéene waxtaane itam nag doomam la bi matee dal alxuraanul karim waajuróom nag sëriñ Moussa Dramé nag moo ko dalal alxuraanul karim ci dëkk boobu nag di paka caar ginnaaw bu mu jàngee alxuraan nag ba tàmbalee jàng nag xam-xam la laxasu nag daa di dem ci dëkk bu ñuy wax nag Ngambi suriwul dara nag dëkk boobu nag di paka caar ñaari kilomètre ak xaaj nag moo dox nag ci seen diggante mu àndoon nag taalibe waajuróom bu mu doon wax nag sëriñ Omar Absa Njaay bi mu demee nag ci dëkk boobu nag di Ngàmbi nag di fa jàng saa bu xëyee nag ba jël bind nag di jàng ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim nag da koy feeñu ba mujj gi nag mu xaw a ragal nag ki muy gis nag saa bu xëyee nag di jàng te xamul nag kan la bi mu ci waxtaanee nag kooku ko waajuram booleeloon nag di sëriñ Omar sa Njaay mii di ko xamal ne daal man saa bu may jàng dafa am koo xam ne daal moom rek laay gis te dem na nag ba tàmbalee yàq nag sama njàng mi damaa a delluwaat nag pakacaar boobu danañ xam ne nag jànguma ci daara nag laa jóge woon dellu nag ci daara loolu daal tax na nag mu bëgg dellu bi ñu waajee nag ba war a dellusiwaat nag ci dëkk boobu nag waajuram nekk nag di pakacaar la waxtaanaat ak sëriñ Omar Absa Njaay mii di ko xamal ne daal damay mujj de nag dem bawal ndax xamal nañ ma ne daal kii may feeñu nag mi ngi foofu bi mu teggee foofu nag ci dëkk boobu nag di ngam bi nag ñëw nag bawal lañ ko xamal ne daal ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadim nag bàyyi koo na fi dem nag ci réew mi nag di gànnaar gànnaar nag la fekk nag ku baax ki sëriñ taalibe waajuram bii nga xam ne nii nag bi muy jàng nag ci ngam bi moom itam nag la fa nekkaloon di sëriñ Mor Absa Njaay mii bi ñu eggee gànnaar nag ci dëkk bii nag di Sarsara nag lañ fekk nag Seexul Xadiim bu ñu sukkandikoo nag ci mbindum Cheikh Moussa Ka ginnaaw bu mu ñëwee ziyaare ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadiim Seexul Xadiim laaj ko nag fu mu jógee mu xamal ko itam nag fu mu jógee mu laaj ko itam nag ana waajuram mu xamal ko ne itam daal ma nga fa ginnaaw bu ko fa Seexul Xadiim téye ay fan la ko yónni waat nag Saalum di ko xamal ne daal soo demee na nga wool ma sa waa waajur nag sëriñ Moussa Dramé bi mu del si waatee Saalum nag ànd ak ki mu àndaloon nag di sëriñ Omar Absa Njaay mii ñëw na xamal waajuram ne ko bi may jàng nag ci dëkk boobu nag di Ngambi la ma Seexul Xaddim feeñu woon ma demoon gànnaar nag seeti ko waaye ginnaaw bu ma ko ziyaaree ba noppi nag xamal na ma ne daal yow mii nag la soxla bi mu ko waxee waajuram nag sëriñ Moussa Dramé sëriñ bi nag di ko xamal ne weeru koor wi nag suba nag lañ koy um damaa bëggoon a toog nag ba ñu woor nag ba wori ndax itim waxtaan yu ëpp nag ci koor gi nag man maa koy amal sëriñ Babacar Dramé nag di ko xamal ne mënumaa delluwaat nag gànnaar nag di wax lool nag seexul xaddiim su ma sañoon nag dama lay xaar nag bañ wari a ànd ci biir weeru koor goog nag la sëriñ Moussa Dramé dem nag Tiwaawoon seeti nag maam Cheikh El Hadji Malick nag mi mu joxoon boppam ginnaaw bu mu waxtaanee maam Cheikh El Hadji nag laaj ko ci ndigal Cheikh El Hadji Malick nag joxoon na ko ndigal nag ngir mu fekki seexul xaddiim nag gànnaar bi mu àndeek doomam nag ak mbooloo mu takkoo takku nag ca yoon wa ca mbooloo moom mu àndaloon nag doon dem gànnaar nag moom sëriñ Moussa Dramé ci ginnaaw nag bu doomam sëriñ Babacar Dramé nag fekkee seexul xaddiim ba noppi te seexul xaddim nag doon ko xamal ne nag damal wool ma sa waajur wa mbooloo moomu nag sëriñ Moussa Dramé àndaloon ñu mën cee ràññee nag sëriñ Mor Boda Dramé di magi sëriñ Babacar Dramé sëriñ Omar Absa Ndiaye mii àndoon nag sëriñ Babacar Dramé sëriñ Babacar Dramé mi seexul xaddim ngir mu wool ko waajuramam wa ak ku ñuy wax sëriñ Lamine Noor sëriñ Biram Mamour sëriñ Mamour Ndumbe sëriñ Njuga Mbaram sëriñ Mouhamadou Dramé sëriñ Alioune Kaya Cissé sëriñ Samba Xoye ñii daal la sëriñ Moussa Dramé boobu nag di gànnaar ba gisee ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadim Seexul Xadim nag di ko xamal ne Babacar mi nag dafee ñëwoon ànd ak Omar Ndiaye mii Babacar nag di wax ne nag sa doom la Omar Ndiaye itam nag di wax ne nag sa taalibe la ma sàkku woon ci moom nag mu ñëw nag woo si la sëriñ Moussa Dramé nag di ko xamal ne noonu nga ko waxe de noonu la amee waaye Babacar mii da daara ja laa ko yebaloon ngir mu war a jàng nag xam-xam ndax doomu soxna nag daa war a jàng Seexul Xadim nag di xamal sëriñ Moussa Dramé baat a jàng ku dul doomu soxna bi ne moom wurta jàng su boobaa bàkkaar bu mu am nag yow nag da nga cey jël nag sa wàll boo nee doomu soxna itim nag jàng ko war day foog ne nag su jàngee ba ñëw la ko waroon nag def na ko su boobaa nag leneen lu mu deful lu ne bàkkaar ba mu ca amee itim nag yaw da nga cey am itim nag sa wàll da nga naan jaam jaamu yàlla nag mooy nag li ko war ginnaaw bi nag la ko Seexul Xadim nag di laaj nag wala nag di laajaat nag naka nga tudd Tafsir Moussa Dramé nag lañ may woowee Seexul Xadim nag di ko xamal ne yow nag daa mel ne daal téerab suñ borom bi nag am na nag loo ci xam mu di ko xamal ne daal am na daal lu ma ci borom xamal na mook seexul xadiim nag séq nañ nag ay waxtaan nag ay fan bari na itim nag fuñ jaar itim nag ci waxtaan woow ginnaaw bu fa sëriñ Moussa nag defee ab diir la ko seexul xadiim nag ñaanal di ko xamal ne nag mën naa delluwaat nag saalum dem ànd ak nag mbooloo moomu nag mu àndaloon bàyyi fi nag Babacar mi nga xam ne nii nag moo ko fi jiitu woon ak Omar Ndiaye mi nga xam ne nii nag moom la àndaloon ginnaaw nag bu fa sëriñ Babacar nag defee ab diir wala bu fa defee nag ay weer la ko seexul xadiim nag woolu ba mu ñëw di ko xamal ne mën ngaa delluwaat nag ci sa waajuroo soo eggee itim nag nga eggale nag sam njàng sang waaye sëriñ Babacar Dramé nag ginnaaw bu ko Cheikhul Khadim ñaanalee ba noppi dafa bàyyi nag sëriñ Omar Ndiaye nag mu ñibbisi moom nag dafa wéy nag des nag gànnaar ginnaaw na la ko Cheikhul Khadim mi ko ba mu ñëw nag mu di ko xamal ne nag ñaanaloon naa la boobaak léegi nag daa mel ne demoo sëriñ Babacar nag di ko xamal ne bi ma la xamee léegi bëggatuma dara soxlaatuma dara bëgg fee toog nag di la liggéeyal nag moom moo tax Cheikhul Khadim nag bàyyi woon na ko fa nag ab diir ginnaaw bi nag la ko woowaat nag di ko xamal ne mën ngaa ñëw nag delluwaat Saalum nag te nga toog nag ci sa ginnaaw waajur wa dinaa la defal loo xam ni itam nag mooy gënum njàng wala lépp loo xam ne ni daal boroom xam-xam xam na ko yow itam nag kenn du la ca man tax na ginnaaw bu ko Seexul Xaddim ñaanalee nag Sëriñ Babacar Dramé itam nag eggoon na itam nag ci xam-xam kenn rëwu ko ci woon te am njàngam itam nag eggul eggoon na itam nag ci baat bu leer saa buy wax itam da ngay xam ne boroom xam-xam dëgg nag moom mooy wax itam eggoon na itam nag ci xaas akuk ñaan itam lum la wax itam daa ci teg nag sa bët moo tax sax soo delloo sax ci way xam-xam bi mu amee woon ak ñaan gim daa defi tim te lu mu wax suñ borom dogal ko itim ci la gën a taxaw wala bokk na itim nag ci li mu taxaw mu jógee gànnaar nag delsiwaat saalum nag ci dëkku waajuram wéy nag ànd ak waajuram lépp loo xam ne nii daal waajuram ma nga ca mu nekk ci ak moom ba ni fi waajuram bàyyi ko mu ànd ak magam nag sëriñ Mor Bodé mi nga xam ne nii nag ñoo bokk waajur wu góor ak waajur wu jigéen wéy itim nag ànd ak moom ba ni fi sëriñ Mor Bodé nag bàyyi ko ci atum 1935 mu ñëw nag toog nag toogaayu atum 1950 nag mu génn àdduna moom jëmm jooju nag di sëriñ Babacar Dramé soo delloo nag ci way yii ko Cheikh Moussa ko way mi ñuy xamal ne nag doomu sëriñ Tafsir musaa daraame la Bakacaar itam nag ci Saalum itam nag la cosaanoo réew mii nag di gànnaar nag ci dëkk bi nag di Sarsaara itam nag la fekk ko baax ki sëriñ tubaa Seexul Xaddiim jaayanteeg moom Seexul Xaddiim itam nag moo sàkku ci moom itam mu dem nag indil ko waajuróom wu góor nag di sëriñ Moussa Dramé dem nag gu sëriñ Moussa Dramé nag demoon itam nag ci Cheikh El Hadji Malick itam nag di ko tàggu xamal ne daal cheikhul xadim nag moo ma woo kiimaan nag gu sëriñ Babacar Dramé nag yore woon borom boroom xaasitim nag gu mu nekkoon borom mu ñaanitim nag gu mu nekkoon ndonal waajuram woowu nag mu donn nekk itim nag ñaareelu xalifaam ñaanal itim nag gu ko seex Musaa Ka itim nag di ñaanal ngir itim nag mu mën a taxawu itim nag taxawu taxawuwaayu waajuram ginnaaw yàlla itim saalum-saalum yu bare itim buñ ñëwee nag ci yoonu murit jëmm ji itim nag di sëriñ Babacar Dramé itim nag moo ko waral ak kër gum defaloon cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke nag ci nekkinam jox gum joxoon boppam moom itam nag Cheikh Modou Moustapha Mbacke ginnaaw ay waajuram ak i magam mbooloo mu bari nag mu mu tarbiya loolu lépp daal la Cheikh Moussa Ka tënk nag ci ay way di ñu xamalee nag doomu sëriñ Moussa Tafsir Dramé mii di sëriñ Babacar Dramé nag ngir ñu xam ko ñu teewlu nag li ci Cheikh Moussa Ka wax di ko ñaanal nag barke nag ak yiw moom doomu sëriñ Moussa Dramé bii nag di sëriñ Babacar Dramé qaala Moussa ibnu Ousmane Ka yamdahu seexu baabu Dramé ibnu Moussa Dramé ayaa man yaqra'u al abwaaba turra yaruumu baabullaahi laysa bi kulli baabi wa baabullaahi yun maali ndaraame wa baabullaahi dee su ko tëj fa saalum xalifatu seyxinaa muusa daraame xasal mi le baabu uutu na baay ba ilman defar lislaam ja woote na lil maraami saxal na jumaa ja tarbiya gaaya dëhëran sariatu baak xaqiqatu raw na waame sëriñ tuubaa ubbil na baabu xayri la daa paka car sa nuuli kulla aami wayafta lewet te yaatu te way te man gan la boole fa daaru gaaya di daw di raame wa rahmatu ndey ja jur na yaa jaaram sagan du ko sóoru saalum fil maqaami boroom xar baax la raamal leen ko tey daw karimun min karimin min kiraami ndëggu baatin ba jéggi na tànki baayam wal hablul matiinu bilan fi saami ca waxtu ndaw la raw maasam nga turan ñu naa kàng fóore ak tafsir daraame boroom baatin la fekki na ba gànnaar ba wommar doog a jox ko maa simaami ceroog la ko ba yónni mu woosi baayam ilaa gànnaar maqaaman bil maqaami te fekk na booba baayam def muqaddam di roy alaaji maalik lil imaami mu ànd ak baay ba booba ilaa tiwaawoon ñu tàggu ji aas ziyaare ko ci dawaami keroog la ko aas ne bàmba ndaxam du maasam waliyu ya sax fa diwaan fi maqaami murit bu ko gis bàyyib sëriñam ci baatin keroog la ko tàggu daldi ne wasalaami sëriñ musa paate daldi rañaan wa baabu ilaa gànnaar sa sarsaarin liraami sëriñ tuubaa ne seex musa paate mooy suuf te maay baykat bi léemu dundal ndaraame keroog la ba jàngal faskuróoni mu jébbulu foofa raw na ilal xiyaami ca mooma at la tarbiya réewi saalum fa sancak daaru fawxana waa ndaraame li leer tax baabu donn ko donn tuuba wa daaru salaam wa quddoosi wa saami tabax na fa kër li sayidi mustafaana xalifatu bamba xutbula wal humaami na yàlla saxal ko daaru te may ko mbooloo la daa daari nahimi bilaa xaraami te may ko lu raw lu baayam amoon fa saalum di jant bu dem ca njolloor bil xitaami te jaayaahu hanil aqlaami kallat ma jéem a taxawlu far ne ko naam daraame te far ñaanal ko barke bu yokku dëhëran te may dongoom ya barke bilaa haraami te may doomam ya ak waa kër ga xayran wa aafiyatan dawaaman fii dawaami bi jaahi xadiimi xaatimi kulli rusuli alayhi salaatu rabbiya bi salaam mu wéy nag des saalum googu nag ci ndigalul sëriñ tubaa seexul xaddiim wéy tim nag ànd ak waajuroom wu góor yu nag di sëriñ Cheikhul Khadim nag jógee gànnaar nag dellusiwaat nag ci réew mi dem nag ci dëkk bii nag di Ceyeen sëriñ Babacar Dramé nag daana dem Ceyeen itam nag daa fekki ku baax ki sëriñ Touba Cheikhul Khadim am na ci yoon woo xam ne nii nag jarbaatam nag sëriñ Birane Cissé nag la fa àndaloon ginnaaw Ceyeen itam nag njaareem daana dem njaareem itam nag di fekki ku baax ki sëriñ Touba Cheikhul Khadim ba ne fi Cheikhul Khadim bàyyi ko mu jël léppam nag jébbal Cheikh Modou Moustapha Mbacké toppitim nag ci ginnaaw ay magam di leen xoole nag sëriñ Moussa Dramé ginnaaw bu mu mujjee gis nag magam nag sëriñ Mor Bodé Dramé ñëw nekk nag ñaareelu xalifa nag waajuram di sëriñ Moussa Dramé defar nag lu takkoo takkoo takku nag sanc itim nag ay dëkk ba tax na nag soo delloo sax ci mbindum sëriñ Moussa Ka mi ngi wax ne ndono loolu ko waajuram bàyyeeloo nag muy jumaa ja sàmmoon na ko nag wala yokkoon na ko kim joxoon boppam nag ginnaaw cheikhul xadim di mu Mamadul Moustapha Mbàkke itam nag defaraloon na ko ak kër mbooloo mu takkoo takku itam nag defar na leen ci dëkk boobu itam nag di Saalum ñu mën cee ràññee nag sëriñ Alioune Cissé sëriñ Alioune Kumba sëriñ Gaye Serigne Diagne ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu mu defar taalibe yi fi waajuram bàyyi woon ak magam nag Serigne Mor Bodé Daraame ginnaaw bu mu toogee xalifa yitim nag ñu takkoo takku yitim nag ca taalibe yitim nag moom lañ joxoon nag seen bopp sanc na yitim nag ay dëkk nag yu takkoo takku nag ci bi mu toogee nag xalifa nag Serigne Moussa Daraame ñu mën cee ràññee nag dëkk bu ñuy wax nag Daaru Nahim doomam nag Serigne Mor Njaaba Daraame nag la ko joxoon Serigne Mor Njaaba Daraame moomu doomu Serigne Mor Bodé nag mii magam la moom Serigne Babacar Daraame yitim nag sancaat na dëkk bu ñuy wax nag doomam nag sëriñ Omar Dramé itam nag la ko jox sëriñ Omar Dramé itam nag doomu sëriñ moor Bodé nag mi magam la jox na itam nag ak njabootam ngir itam nag ñu sanc itam nag ay dëkk muy dëkk bu ñuy wax nag Daaru Bayla sëriñ Moodu Lamine Dramé nag la joxoon ndigal na ngir mu sanc ko am na taalibeem itam nag bu ñu wax nag sëriñ Ousseynou Ñaan joxoon na ko ndigal itam nag ngir mu sanc nag dëkk bu ñuy wax nag Ndindi joxaan na ndigal itam nag taalibe baayam bu ñu doon wax nag sëriñ ma Lo ngir nag mu dem sanc nag dëkk bu ñuy wax nag Daaru Halimul Xabiir ñu gën koo xam nag ci Ndaama ak yeneen ak yeneen i dëkk nag yu mu sanc loo nag ay taalibeem bi fi waajuram nekkee nag di sëriñ Moussa Dramé te Cheikhul Khadim nag joxoon ko ndigal nag mu sanc nag dëkk boobu nag di Daaru Salaam Paka Thiar ginnaaw bu ko sëriñ Moussa Dramé sancee nag ba noppi ñeen fukki kër nag la fa sëriñ Babacar Dramé defar ngir képp koo xam ne nii nag bëgg ngaa toxu nag ci dëkk ba soo demee nag fekk nag sa kër noppi magam itam nag sëriñ Mor Bodé Dramé bi mu toogee xalifa sëriñ Moussa Dramé bari na ay dëkk nag yu mu sanc rakkam gi nag di sëriñ Babacar itam nag la joxoon ndigal itam ngir ñu sancal ko ko waajuram li ko dalee nag ci 1935 ba ci 1950 laataa muy génn àdduna nag ci atum 1950 taxawar na kër dëkkoo gi tim nag ak ay soxna ci biir soxna yooyu mu dëkkoo woon nag ñu man cee ràññee soxna suñu nag soxna Faati Kumba Daraame mook soxna Faati Kumba Daraame nag am nañ nag ak njaboota ñu man cee ràññee nag sëriñ Mbàllu Daraame sëriñ Abdul Xadim Daraame sëriñ Babacar ñu gën koo xam nag ci sëriñ Mbay Daraame sëriñ Abdou Samad Daraame soxna Aminata ñu gën koo xam nag ci soxna Nattu Daraame soxna Xadijatu Daraame soxna Maam bu Buso Daraame soxna Aysatu Daraame soxna Ramatu Daraame soxna Seynabu Daraame ak soxna Jàngu Daraame njaboot gi nag la soxna Faati Kumba Daraame am ak Sëriñ Babacar Daraame yoraatoon na nag beneen soxna nag bu ñuy wax nag soxna Aminta Jeng mook soxna Aminta Jeng itam nag amoon nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag Sëriñ Moustapha Daraame Sëriñ Ami Daraame Sëriñ Alioune Daraame Sëriñ Abdou Salaam Daraame soxna Ramata Daraame soxna Maam Bodde Daraame maneen soxna Ramata Daraame ak ku ñuy wax soxna Faatimatu Daraame yoraatoon na beneen soxna nag bu ñuy wax soxna soxna njaayoo njaay mook soxna si itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ abdul aziz daraame sëriñ ibrahima daraame sëriñ mouhamadul lamin baara daraame soxna ummu kalsoom daraame soxna maymunatu daraame ak soxna aysatu daraame yoroon na soxna suñu wax soxna jàngu daraame mook soxna si itam nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññee nag sëriñ ousmane daraame soxna faatu jànku daraame soxna yaama jànku daraame soxna roqiyatu daraame soxna ummu xayru daraame soxna faatu njumba daraame yoraatoon na soxna suñu wax soxna yaama jóob soxna Yaama Jóob nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag sëriñ Cheikh Daraame sëriñ Moussa Daraame maneen sëriñ Cheikh Daraame soxna Aysiyatu Daraame soxna Xadijatu Daraame soxna Loo Daraame ak soxna Xadi Diba Daraame soxna yii nag la dëkkoo woon njaboot yii nag la ci am nag moom sëriñ Babacar Daraame ngir xamale leen nag njabootu sëriñ Babacar Daraame nag ñoom ñooy ñan doom ji nag di soxna Natu Daraame bi mu matee dem kër sëriñ Mouhamadou Lamine Cissé nag lañ ko joxoon nag bu pir mook sëriñ Mouhamadou Lamine Cissé nag bu pir itim am nañ ak njaboot aji ami siise ak sëriñ moodu siise ginnaaw bu soxna nattu daraame nag jógee ci sëriñ mouhamadou lamine siise nag bu pir lañ ko jox nag sëriñ masamba lo ci daaru xalimul xabir nag di ndaam nekkitim nag ci saalum mook sëriñ masamba lo nag benn bant lañ am muy sëriñ cheikh lo doom ji nag di soxna aysatu daraame bi mu matee dem kër sëriñ malle saaxo nag lañ ko joxoon mook sëriñ male saaxo nag benn bant nag lañ am muy ku ñuy wax nag sëriñ moustapha saaxo mu jógee nag ci loxoy sëriñ malle saaxo jaar na nag ci ñeneen ak ñeneen faneen yooyu yëpp nag mu jaar njaboot yam fa am kenn nag da dund moo tax itam nag ñu bëggoon a barkeelu rek ci jëmm ji kenn ki nga xam ne nag moo ko njëkk a ngir wax leen ne itam nag dem na kër doom ji nag di soxna yaama jàngu daraame bi mu matee dem kër sëriñ El Hadji Cheikh nag lañ ko joxoon mook sëriñ El Hadji Cheikh Cissé itam nag am nañ benn bant muy ku ñuy wax nag sëriñ Jéeri Cissé doom ji nag di soxna maam Boussa daraame bi mu matee dem kër sëriñ Tayba Saaxo nag lañ ko joxoon moog sëriñ Tayba Saaxo itim nag am nañ ak njaboot ñu mën cee nag sëriñ Bamba sëriñ Moustapha Moustapha Sakho ak Serigne Babacar Sakho ginnaaw bu soxna maam Bousso Dramé nag jógee nag ci loxoy Serigne Taïba Sakho lañ ko jox nag Serigne Mamour Dramé mook Serigne Mamour Dramé itam nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag Serigne Cheikh Dramé Serigne Moustapha Dramé ak Serigne Bachir Dramé doom ji nag di soxna Seynabu Dramé bi mu matee dem kër Serigne Malick Touré nag lañ ko joxoon mook Serigne Malick Touré nag am nañ ak njaboota muy ku ñu wax Serigne Babacar Touré Serigne Ousmane Touré Serigne Cheikh Ahmadou Touré Serigne Fallou Touré soxna Aïssatou Touré Serigne Bassirou Touré ginnaaw bu fi sëriñ Malick Touré nag bàyyi ko lañ fob nag soxna Seynabou Touré mi jox ko rakku sëriñ Malick Touré ba di sëriñ Fallou Touré mook sëriñ Fallou Touré itam nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag soxna Yacine Touré soxna Maam Bousso Touré ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ Fallou Touré lañ ko jox nag sëriñ Thierno Ñang mook sëriñ Thierno Ñang itam nag am nañ ak njaboot moom soxna Seynabou Daraame muy ku ñu wax nag soxna Faa Mbay Ñang ak sëriñ Abdou Lahat Ñang doom ji nag di soxna Roqiyatu Daraame bi mu matee dem kër nag ku ñuy wax sëriñ Cheikh Fatou Daraame nag ko joxoon ci dëkk bu ñuy wax nag na fa itam nag borom dëkk ba nekkoon na fa itam nag imam ba am naa ak moom nag benn bant nag bu ñuy wax nag soxna Ami Kanji Daraame ginnaaw bu soxna Roxaya nag jógee ci loxoy nag sëriñ Cheikh Faati Daraame sëriñ Abdou Cissé nag ci dëkk bu ñuy wax ndaam daaru Halimul Xabir nag lañ ko joxoon mu am ak moom nag ku ñu wax soxna Xadi Cissé ak soxna Yata Cissé ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ Abdou Cissé lañ ko jox nag sëriñ Mouhamadou Siñaan ñu gën koo xam nag ci jim mook sëriñ Mouhamadou Siñaan moom am nañ nag ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Faati Siñaan ku ñuy wax nag soxna Awa Seex Siñaan ku ñuy wax nag sëriñ Siñaan soxna Awa Siñaan Adama Siñaan Ahmadou Siñaan ñu gën koo xam nag ci dàgga doom ji nag di soxna matu Daraame bi mu matee dem kër sëñ El Hadji Cheikh Daraame nag lañ ko joxoon mook sëriñ El Hadji Cheikh Daraame itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Omar Daraame sëriñ Abdul Xaadir Daraame sëriñ Moustapha Daraame sëriñ Abdul Ahad Daraame sëriñ Abdul Akim Daraame ak soxna Aminata Dieng Daraame doom ji nag di soxna Faatu Jàngu Daraame bi mu matee dem kër sëriñ Cheikh Diouf nag lañ ko joxoon mook sëriñ Cheikh Diouf itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee sëriñ sëriñ cheikh mbàkke juufa soxna busa juufa soxna màggat juufa ak soxna ndey juufa doomam ji nag di soxna ansiyatu dramé bi mu matee dem kër nag ku ñuy wax sëriñ baabu congaan nag lañ ko joxoon am nañ nag ak njaboota muy ku ñuy wax nag sëriñ moodu congaan ak ku ñuy wax nag sëriñ sërif congaan doomam ji nag di soxna loo dramé bi mu matee dem kër ku ñuy wax nag omar saaxo nag lañ ko joxoon mook sëriñ omar saaxo nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag ku ñu wax soxna mariama saaxo sëriñ omar saaxo sëriñ basiru saaxo ku ñuy wax nag babacar Dramé nag jógee ci loxoy nag sëriñ Omar Sakho lañ ko jébbal nag ku ñuy wax sëriñ Thierno Dramé mook sëriñ Thierno Dramé itam nag am nañ ak njaboota soxna Aysatu Dramé soxna Ami Kolle Dramé sëriñ Mbakke Dramé ak sëriñ Moustapha Dramé doom ji nag di soxna May Dramé bi mu matee dem kër sëriñ El Hadji Aale nag lañ ko joxoon ñu gënoon koo xam nag ci turu murit ci dëkk bu ñuy wax nag Segre ñu mën cee ràññee nag soxna Njaayo Dramé soxna Xujja Dramé soxna Faati Dramé sëriñ El Hadji Dramé sëriñ Babacar Dramé njaboot googu ñu leen tuddal na nag ci lenn nag ci sëti sëriñ bi sëriñ Babacar Dramé nag mi ngi génn àdduna ci feebar nag bu ko tëral ci dëkku waajuróom boobu nag mu nekkoon di daaru paka caar ginnaaw bu mu tëddee feebar nag lañ ko yëgal nag kam yaakaaroon di sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma itam moo sàkku mu jóge nag daaru paka caar ñëw nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba bi mu ñëwee Touba itam sëriñam ba nag sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moo ko dalal itam nag ci bayti ci bayti googu nag la génnee àdduna ginnaaw bu nag yu teg ci bisub àllarba fukki fan ak ñett nag ci weer wi nag di rakk ji gàmmu ci atum 1369 nag ci gàddaay gi àllarba fukki fan ak ñett ci rakk ji gàmmu ci atum 1369 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy mercredi 1er février ci 1950 mercredi 1er février 1950 Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moo ko jullee sàkku itim nag ñu denc ko itim nag ci armeel yu mag yi ay xalifaam nag nii la tëddee nag moom Serigne Babacar Dramé Serigne Moustapha Dramé nag moo ko njëkk a wuutu atum 1950 ba ci atum 1992 ñaareelu xalifa sëriñ Babacar Dramé mooy sëriñ Alioune Dramé ci 1992 ba ci 2004 sët yi nag tàmbulee wuutu nag seen maam ji sëtam bii ñuy wax sëriñ Cheikh mbay Dramé di doom sëriñ Moustapha Dramé mii ko njëkk a wuutu moo ñëw nekk nag ñetteelu xalifa sëriñ Babacar Dramé li ko dale nak ci atum 2004 nag ba nëgëni waaye nag sëriñ Babacar Dramé am na doom nag ju fi des ju ñuy wax nag sëriñ Cheikh Dramé sëriñ Cheikh Dramé moomu nag dafa bàyyee lépp nag luy xilaaf ak sëriñ Babacar Dramé Dramé doomam ji nag di sëriñ Cheikh Mbaye Dramé ngir mu yilif nag mbooloo mi moom itam nag mu des nag di leen magal kon nag xilaaf ak sëriñ Babacar Dramé nag jamono ji sëtam bu ñuy wax nag sëriñ Cheikh Mbaye Dramé nag ko yor nag ci atum 2004 nag ba nëgëni moom sëriñ Cheikh Mbaye Dramé nag ñu ngi koy ñaanal suñ borom nag guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu maamam boobu ak mbooleem nag ñu mu séqal nag sëriñ Babacar Dramé moo xam góor nag ak jigéen rawatina nag doomu sëriñ Babacar Dramé bii fi des na bis nag buñ ñu koy fàttaliku nag ci li ñu tuddee ak màggal bis bii nag mu génnoon àdduna dëppoo gi itam nag muy fukki fan ak ñett nag ci weer wi nag di rakk ji gàmmu bis boobu itam nag la ak njabootam jàpp di ko ci fàttaliku ci dëkk boobu nag mu tëdde woon feebar guddi ak bëccëg la ñu ñaanal ko ci nag moom doomu sëriñ Moussa Dramé bi suñ borom yokk ay leeram nag te taas ñu itam nag ci barkeem ñuy ñaan itam nag lii di jafe-jafe réew mi itam yàlla na ko suñ borom saafara ci darajay Babacar Dramé moom nga xam ne nii itam bari na ay saalu saalum saalum nag yu nekk murit ginnaaw yàlla nag moom moo tax ak nag ci daraja yi mbooleem nag saalum saalum bu sëriñ Tuubaa defar amiin